di wax rek ni tey débat bi débat bu waroon na sërin la débat la bokk dafa waroon a def unanimité su fekkente ne dañu sukkandiku ci li nu doon ca boole ko ak fulla ak fayda ak mat bu mat sëkk bu fekkente ni groupe parlementaire dafa xool candidat bi ni suma candidat bi dañu ko lésé mu demander la mis en place d'une commission d'enquête parlementaire pour leeral loolu je crois que tout groupe responsable devait adhérer à cela rawatina nag bennoo bi nga xam ni dañu am lu ñu ci tudd candidat am ca loolee mu war ko setal ba mu set wicc kon loolu warul woon indi aw coow waaye ki mënta ànd ak kenn bu l'histoire di dox chaque jour mu prouver ni mënta ànd ak kenn ca kenn ñoru ko ku dul boppam ku mënta garder groupe parlementaire doo mën a garder leneen ca gis nga Sénégal gii li fi jar soppi ci système électoral bare na bu ñu nee deux cent nangami candidat jël nañu dossier filtre parrainage filtre la waaye foofu war naa am filtre parce que waruñu bàyyi biram sàmba suggum ngay mu ci nekk rek nga ñëw jël sa dossier parrainage dem def sa publicité cam wóor la ne yow ñaar fukki nit ñu wóor nekk ci ay kayit munoo ko am loolu dañu ko war a seetaat seetaat ko loolee nag moo nu indi fii ci assemblée nationale bi ba mu am configuration bii nu am parce que soo ko xoolee da ngay gis loo xam ni système électoral moo ko indi waaye bu doon système électoral amul woon du demee noonu buñ nee dañoo am quatre-vingts députés opposition am quatre-vingts députés am ay non inscrits ca ma am un million cinq cent mille voix moom moom un million trente mille voix système électoral la kon boobu warees na ko seetaat ñu demee ba ci biir nga ni man maay meerub furu Tëngéej meerub Tëngéej boobu juróom juróomi candidat la fa Benno Bokk Yaakaar amoon suñu jëloon candidat bennoo bokk yaakaar ba ak Seydou Diouf mii nga xam ne bennoo la bokk nga boole ñoom ñaar seeni waa nun nu gagné tous kon c'est un faux débat que de prôner boo xam ne da ngay coow mais amuloo ca dara conseil constitutionnel nag le président Macky Sall moo ko jox doole moo ko réformé bi mu fii ñëw juróomi nit la woon mu réformer ko def juróom-ñaari nit ni yéen assemblée nationale comme yéen représentant peuple yi dama leen di jox possibilité pour ngeen mën a désigner ñaar mu nekk sept sages yooyu ñuy wax kenn koo xam ni ci réew mi nag am nga droit walla possibilité ba yoon du tegu ci sa kaw bu ñu la ko mébatee da ngay wax lu la neex yoon amul xejj amul xalaat amul dig amul xet képp ku mu war a dal ci sa kaw day dal ci sa kaw boo ko wàccee kon nag ku moom xar mi nga bàyyi buum gi dafa teel noonu li nu bëgg mooy yoon may nu ko mooy information yu ñuy wut buñ ko wutee ba pare jébbal ko assemblée nationale le traitement qui sera fait de ces informations n'est pas notre problème il peut être judiciaire il peut être politique ce n'est pas notre problème suñu problème daal mooy lii sunu collègue yi wax na leer ba xam est-ce que teg nañ leen ci yoon wala teguñu leen ci yoon li nu waxal sunu candidat na leer ba xam lu ci dëgg ak lu ci dul dëgg lii moom tax a jóg kuy wër lu dul dëgg nag da ngay ma Macky sàll koo xam ni saaga policier lu la neex nga wax lu la neex nga yow boo ñëwee fii tey ànd ak avocat yoo xam ni mais war nañ ko yóbbu ci coiffeur ñu defaruwaat ba jekk ca wutal leen yére yu baax ba ñu gën a toilettu sax baax na ci kon boo gisee et puis c'est pas la première fois en France il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de la justice avec le professeur Aubrier. a eu beaucoup de, de, de commissions d'enquête parlementaire de par le monde sur des questions judiciaires. Donc c'est pas la première fois que lu mel nii di am li ñu bëgg daal mooy élection yu jaar yoon su ngeen ñemee ci géew bi ay ca Sénégal nag mooy réew moo xam ni parce que France keroog ba nga xamee ni Dominique Strauss-Kahn jiiñ nañ ko Nafi Diallo daa retiré wu yéen nag lu ne jiiñ nañ leen ko juuma bu ne def ngeen ko lu ne def ngeen ko ba pare taxaw fii di xëcc ak di xool amu leen jom amu leen fulla amu leen